ci wax rek waxtu bi dafa dafa gàtt waaye sëriñ bi dafa ubbi bunt boo xam ne buñ ci doon wax fii ba suba du du jeex dama ci seere rek ci ñetti mbir yi nga xam ne moom la def analyse bi muy def ndax sëriñ bi Cheikh Wass suñ borom da koo dimbale ci analyse moom yaakaar naa ne dama damay wax ne bu doon calcul du ci mati bu doon mathématicien dañuy wax ñi carrière mathématique la bokk waaye moom du jàngut mathématique ci créateur mathématicien la ci ci ci borom ñi ñi ñiy def évaluation ci mentalité nit ak évolution nit ak estimation loolu la ko yàlla dimbalee ah, ñett rek nag gis naa ne ku ko lu ko ñor la mooy fi jamono toll ak ni jamonoy doxee ak fi adduna bi toll bëgg na gone yi nekk ci niveau waaye bu ñu ci nekkee nag ñu boole ko ak ñaar boole ko ak njàngaleem Sëriñ Tuubaa bi ak culture yoonu murid ak mouridisme bi ni mel ñu bañ cee perte dara loolu loolu loolu mooy mooy mooy li muy xeex guddi ak bëccëg ci am xel ci stratégie ci ay xalaat donc loolu nag boo dul boo xamul boo amul vision di xool fi muy xool di déglu ay waxam wala xamoo lan mooy culture ne doo xam loolu moo tax ñu bari dalee na dafa ngay wax sëñ bi ci boo defee analyse yëpp ci xarnu bii bi ñëw ci bopp ci boobu nga koy xool man koo gis waaye boo koy xool fi ngeen toll du ngeen ko gis yéen xale yi nag yàlla dimbale na leen ci loolu foofu la leen jëmee vision boobu la leen di xooloo ndax yett nag dafa am jamono toll na foo xam ne ku sa boppu feesul sëriñ bi jëmbatu la addina dana la fëkk te boobu la àddina fëkkee da ngay perte culture yoon wi ak aada yoon wi ak njàngaleem sëriñ te dañoo war a ànd murit da koo war a boole loolu da ko war a téye ba noppi nag nekk topp ci àdduna bi loolu rek la leen doon leeral loolu laa laa xam ci moom waxtu wi dafa jot waaye buñ ci doon wax ci xalaatam ci vision fii ba suba maanaam du jeex loolu nag yéen na ngeen góor góorgóorlu bu baax a baax ba fu ngeen toll di di xool lan mooy aada yi bi lan mooy culture bi lan mooy njàngaleem sëñ bi ngeen di seen compétence ngeen fexe ba dëppale ko ak adduna bi bu ngeen ko jox ko bu ngeen suivre loolu rek fu ngeen dem yéenay nekk toog nekk fa échantillon. li si baax seer sëñ Moussa Diatter mi yàgg na yàgg na lool ba may tàmbalee organiser màggal Tuubaa gi ndax dañuy waxtaan ndax moom xam ngeen ne suñ waajur la da àndal. Hmm. Cheikh Abdoul Khadr Cheikh Saliou Cheikh Mouhamadou Moustapha kon mbokk la waaye kilifa la ko xam yoon wi la yëpp te liñ ko dénk xam ngeen waaye dama daa wax bu yàgg naa ma sëñ ab conservateur bi mooy ku bëggul dara soppi li ma ci yëm ci waxe sëñ bi laaj di nag Cheikh Mouhamadou Mountakha fan yii rek waxtu ne da koy seere ci kanam ay kilifa mais Bassirou dama yéem Sëñ Tuubaa ci yow ndax dafa mel ne suñu borom da koo safaane maa waroon a nekk mu xaafis mu xaafis mooy conservateur bu ñu koy firi nga nekk mu jëndit mu jëddit mooy koo xam ne day indi lu yees waaye dafa mel ne yàlla da ko safaane yow sax yaa ma gën a taral ci nekk ab conservateur sëriñ bi waxtu ne dama koy dama koy da koy seere fu ma ne ñëpp dégg nañ ko ci dama ci tooñ bu yàggut ci koor gi ci kanam ay kilifa mu ne ma li ma jaaxal mooy léeg-léeg da ngay nekk daanukat ba àgg ci suuf waaye ni ngay xalaate ci fi àdduna jëmit damay jaaxal ñaar yooyu lu mën a ànd jaaxal ma moo tax bi sëñ Bilaa di waxee ndax comme dañuy wax lu bari ndax dañu seq ci liggéey bi ma sant ci yàlla ndax ni ni ma déggee dama cee sant ndax loolu rek lay yéene yëpp ndax damaa xam ne damaa xam ne li yées ci àdduna mooy la ma waxoon keroog bañ koy tabb moom nii mooy ku ñëpp ñeeti ñëwut boppam waaye li yées si ku ñëpp di roy nga bëgg a soppi na nga mel yoonu murit yàlla dana nim ndimbal defal leen tawfeex ñëpp ñee leen ci melokaan yi leen yàlla meral ba ñi dul ay julli sax ku ci dëkk ko murit bu yàggee mën na laa dugal ci risaa wala mu dugal ci yoonu murit kon nag lu àdduna xumb xumb lu mu jaxasoo jaxasoo nañ fexe ba bañ a xeeb wala ñu woyofal nit ñu yàlla mel ndax nii ñu bindoo kat noonu rek la ko suñu borom bëggee nii ñu mel di taalibe yu dëgg ku ñuy seen xam ne ay murid saadix lañ noonu la ko suñu Tuubaa bëggee